ah dama ni bisimila ku doon laajte faali ngoye ngi nii seen produit naturel xarañ 100 pour cent bio si na jaaxle jeex na de produit la bu nga xamante ni ñu ngi koy defaree a base de plante teg si dama ni la amul benn effet secondaire xarañ ah. rek ci yokku kattan ak cawarte éy xarañ benn jeeg mereetu fi jëkkëram kon yow mi am jafe-jafe se néegu sëy wooteel kaaw ci numéro yi 70 669 69 29 walla boog 77 317 03 41 ak xarañ ñëpp ay xarañ. Amina Poté Sokono SRS da ko doon laayifal amoore Abba Sompo Amina Poté Sokono SRS da ko doon laayifal am benn gel bu tudd Mariama benn gel bu tudd Mariama Silla mu woote ci layi fu Sokono SRS daan ne daan ne xam nga ba mu wootee lan la wax daf ne ah Amina xaaral ma wax leen ba mu wootee lan la wax après ma tegal leen ba ko Amina poté woowee gel bi dañuy mën a duul di yàq der doomu xaraam yi dëkk ak Amina ay at Sokono SS di la nga yàq Amina poté te jëkkëram bëgg ko yaa sa ndey xaaral ma tegal leen li wax balaa maa ñëw cas sur sa cas merci beaucoup prince prince mon ami envoyé na ma affiche bu rafet waay prince merci mon ami damay ñëw ci gel bi li mu li mu waxoon Malick Naar déglu leen gel bi ba mu wootee mais Malick bala maa commencé faa ma faa ma ubbee sa way wi xaaral ma dindi gis ngeen li leen tegal léegi maanaam Malick Naar moom la waale di way xadi xadi loo ndaama dugg di maanaam Malick Naar chaque jour bu ko waali di way ay millions lay joxe mais ñoom xaddi loo ndaama ay 2 dollars la ñu yore 4 dollars xam nga américains yi moom gambien yi noonu la ñu mayee gambien yi dañuy wecceeku dollars yi moom ci kayit léegi donc ñu koy joxe ñoom ay 1 dollar 2 di saltel Malick Naar jëkkërum Amina Poté li muy maye ay millions lay jël di ko bàcci waale ñuy saltel di maye ay xaddi loo ndaama ku bon la barke alxuraan karim Malick Naar di joxe ay millions ngay joxe ay 1 dollar ak 2 2 dollars di saltel bàyyi leen saltel bi Malick Naar yàllaa ko teral mu teral jabaram bëgg ko léegi nan déglu bu baax dañuy tafaat dañuy tafaat Amina Poté dañuy faat Amina Poté jël leen seen temps rek maa ngi ñëw de bu kenn yàkkamti jël seen temps yow kii maa ngi ñëwaat ci yow Pendo maa ngi ñëw dañu tafaat Amina Poté gay nan déglu ndaw si Mariama Silla la tudd ba mu duggee ci laay fa Sokono SS li mu wax Mariama Silla ku katt ndayam la Mariama Silla kii mooy Mariama Silla yéen ñi ko xamul kii mooy Mariama Silla ku katt ndayam kii dunq bii gis ngeen ko moo dëkkaloon ak Amina Poté ca Paris Mariama Silla moo nekk nii moom am lesbienne la sax gis nga ko poojam yi datam bii nekk ci biti mel ne datam nag mi ngi nii léegi dafa woote woon ci laay fa soko déglu leen mu wax ba mu wootee ok. léegi kooku dafa takk benn benn ah voilà papa doomam bu jigéen bi Saliha léegi lii la doon yàq deram xaritu Amina Poté la moo doon yàq deram ci Sokono SRS léegi Amina Poté nag da ko woo appel muy jooy di baalu di jéggalu léegi nan déglu appel bi Amina mooy wax ak moom Amina mooy wax ak ndaw si déglu leen waaw. parce que wax dëgg yàlla yëpp ma woo Choco ma man dama yàgg may doxal sa loxo la kanam la bu la wax Petit ak Saliha ñépp xam nañ ko mais Choco man nekkuma ak moom. Choco man nekkuma ak moom xamuma dëkkuma ak moom yow laa nekkal ñu yeewoondoo. mais yow gis nga ni ma man Mor Cissé yow gis nga Mor Cissé gis nga li moo Cissé yow gis nga li ma ci doon wax ak yow yëpp gis nga li ma ci doon wax ak yow yëpp. xam nga ne moo Cissé man su ma ko bëggoon du takk jabar ba may Malick di takk maag yow ñoo xamandoo Malick non kenn xamul Malick. moom du teg li mu ci yow mais dafa inventé. mais man man man man Mariama nopp man ku ma dama la nopp te yow loolu danga ko xam maag yow dañu amoore. non mais c'est pas grave baal naa la bul jooy. gel baa ngi jooy. sinon yi amul problème lii xool affaire àddina la affaire seytaane la. gel baa ngi jooy. moo doon yàq deru Amina Amina woo ko muy jooy. mi ngi jooy. non bilaay man bañu ma ko wax ci man. doomu xaraam yi Mariama Silla bu ngeen jegee di toj cottu ndayam di woote di yàq deru ni ñi bu leen woowee téléphone ngeen di jooy mais sénégalais yi nan la jigéen mën a yàq jigéen nekk ak Amina dëkk ak Amina ay at. sokono ss wala mën a woo nga naan Amina jëkkëram bugg ko jëkkëram nangamu ko yaa toj sa nday Mariama Silla yaa lekk sa data rus naa laa avisé ndax sa photo bi kenn xamul lu muy ndóol Mariama Silla dinaa si li si lee sa digg lëfal ndey doomu xaram ji Amina Poté ku baax jëkkëram bëgg ko ngeen kat seen ndey di woote di jooy Pendo Guissé looloo ko dal Aji Maas looloo ko dal loolu leen yóbbee yàkkamtee duul ak di informer lu ngeen xamul doomu toj cott ndeyam ngeen bàyyi Malick naar soxor ngeen Malick mii dama leen wax benn affaire ci Malick dama leen wax benn affaire